ak ak taalibe rek boole ñoom ñoom moo ci am ñoo xam ni xar baaxi sëriñ bi eh, ndimbalam feeñ na ci ñoom fees ci ñoom ba nga xam ni waxtu wu ne eh, dañuy dem ba xam ne ñun ci suñu bopp sax dañuy yaakaar ne bu judduwaat mënoon a am eh, danañ judduwaat àndaat ak ñoom di def ni ñoom ndax wóor nañu buñ doxalee ba ca kanam dana mel ni ñun ñii danañu gis bu baax a baax suñ càggante ak sunu ñëw doole ak euh, euh, jëm kanamu sëñ Tuubaa gu feeñ ci ñoom ba nga xam ne ñee rek moo ñuy topp moo ciy topp jóge ci ñun kon gone yooyu lay def at mu jot bu deme demee ba jub màggal nga xam ne mooy bisub sëriñ bi ah te di valeur yi nga xam ne moom la murit tegtaloo ci ndonoom li lépp sëñ bi amee ko ci biiram ci biir bis boobu ñu dajale leen di leen defal ay neexal di leen bégal ci sarti rek nag yu saari xoon na fil xayraati xëccoo daal ak jongante mu jëm ci lu baax mel na ni lu dagan la lu baax la lu ñëpp bëgg la dana soññe dana tax euh, jëf ju baax waxtu ne jullit di ko fàttaliku jamono ba mu toll ngir mu mën koo dimbali ci aw doxinam ci fànn yu nekk gannaaw bi jëwriñu daara jottale cantuk Hizbut Tarqiyyah gépp ci teewaay bu sagu bii